États-Unis la jóge euh, ak yi fond de teint yi moom lañ koy defare lii muy épilatoire nga xam ne da ngay wot euh, kii daal moom ngay def. épilé wu nag euh, mooy démêlant la. kenn ku nekk xam na lii démêlant ak shampoing yi ak ak kii démaquillant yi. waaw démaquillant boo maquillage ba pare nga ñëw fomp ko ak coton lii. lii ay kii la dissolvant pour génnee émail bi nga def ah ay faar la jigéen ñi xam nañ ko moom la ñuy maquillé woo vraiment lépp loo xam ne jigéen soxla na ko daal mu ngi si biir kër gi. Euh, fan ngeen nekk yéen si Dakar. man maa ngi Yoff. yaa ngi Yoff waaw. ban côté. Yoff Apexi. Apexi Apexi 1 waaw. sama numéro téléphone 77 561 18 78. jërëjëf te teddungal teddungal waaw teddungal mooy teraanga ci pël. macha allah waaw teraanga la. noonu la waa kay jërëjëf maa ngi kontaan ci yéen bu baax. di rafetlu seen liggéey daal. vraiment kontaan nañu merci. seen entreprise bi. waaw sama entreprise man maa ngi ko présente Maka Création je travaille avec une copine Kane Close elle a exposé ici man maa exposé fii. lan ngeen lan ngeen di def comme couture. man damay def ay tenues en coton damay def ay tenues en lin pour homme. wane ko waaw yëkkati rek waaw yëkkati. ensemble yi pour femmes ensemble lin la. bii nag. yi ensemble góor la euh, tubéy ak kaftan la yi aussi ensemble góor la euh, super sang la demi saison la damay defar ay euh, tenues en coton aussi wax aussi sama spécialité. comme ça. ay robes. waaw de. wax sama spécialité la jupe taille wax. damay def ay tournées léger aussi. très léger. léger yi dañ koy def ci fooy. waaw. dañuy def ay. ok waaw c'est léger. waaw. ok. ok. jël ko léger. fan ngeen nekk. Euh, man je me déplace quand même parce que damay liggéey je travaille à la DAF. d'accord waaw mais kii sama copine bi Kani Close moom mi ngi euh, Sacré Cœur côté IPG la nekk waaw mi ngi foofu. est-ce que y a un numéro de téléphone. numéro de téléphone pour Makay Création c'est 657 03 78. loolu ay sera là xam naa après dina def présentation bi léegi mu ñëw. d'accord merci beaucoup. waaw merci. c'est la moo waral lool la moo waral lool. macha allah gëm suñu bopp rek uh-huh. uh, di liggéey takk suñu ndig nekk ay jigéen ay femmes battantes waaw loolu rek la loolu rek ko waral. waaw uh, uh, local la am na buy ah saabu yi y a des lunettes parfum am na aussi cuuraay Dubaay la jógee waa yii ay sag la. Il y a aussi des a aussi à de Autriche. On a aussi Bazin. Bazin, oui, beaucoup de grande sœur moo représente fii Sénégal mu nekk bassin boo xam ne macha coton 100 pour cent la. yëkkati ko yëkkati ko yëkkatil benn yëkkatil coton 100 pour cent voilà xool coton 100 pour cent. bi 100 cent coton la ute na ak Getzner euh, parce que Getzner dafa am polyester mais bi c'est du coton 100 pour cent waaw sama grande sœur ma ko représenté Sénégal. mu nekk marque boo xam ne dafa ñëw bu bees ci Sénégal. fu muy jógee fan la jógee. mu ngi jógee Autriche kenn amul woon surtout ko sama mag bu jigéen moo am repré fit euh, ko Sénégal parce que ba nekk bassin boo xam ne macha allah noobu rek koy sol. waaw fan ngeen nekk fu nekk si Dakar. ngi nekk Parcelles Assainies unité 17 en face euh, terrain bi foofu lañ nekk. yow sore sore woo ma. non sore ma la ba pare dañu def GP on fait du business. Euh, société entreprise mu ngi tudd Linguère business service mais macha allah ay xale yu compétent ñoo fa nekk on fait du business dañuy def euh, GP partout dans le monde. nga joxe sa numéro. Euh, suñu numéro mu ngi 77 845 96 47 wala 77 019 97 27. jërëjëf Linguère. merci. merci. voilà ami internaute ñu ngi fii si Jofa euh, Couture ñu fekk fi nag euh, vraiment soxna yu baax ñu nekk fi également exposé euh, mën nga ñu wax sa tur soxna si. man Binta. Binta soxna Binta. waaw Binta Dieng. Binta lan ngeen di lan ngeen exposé tey. dama doon jaay samay borode. borode yi laay jaay ak cuuraay. waxal bu baax Binta. ak ostage yi. borode yi ak cuuraay ak ostage yi. ak tissu yi. ba ban ban façon tissu la. li stage la tëdd. tissu bu rafet la macha allah waaw. bii tamit bloca la tëdd. tissu bu rafet macha allah. yu rafet moom boo ko bëggee fii ngay ñëw waaw. li brodé la. waaw neex na ci tàngaay wi waaw. lii brodé coton la 100 pour cent moom tamit neex na ci tàngaay bi macha allah. robe yee tamit. robe yi ñoo nekk euh, jëlal robe yi. robe yi rafet macha allah. waaw tàngaay la waaw pour été bi la waaw. Euh, yeneen yi ngay jël lan la. cuuraay la. cuuraay yu neex waa macha allah boo koy taal benn bi dong ngay dindi. vingt koy jaayee waaw mais benn bi dong ngay la paquet bi ay ay biir. waaw dafa am mu ngi nii waaw yow ngay taal benn rek waaw benn kese tamit moom la ay cuuraay xala xala waaw waaw. yii tamit parfum la 5000 francs laa koy jaayee. parfum laa koy jaayee waaw yi tamit parfum la 20000 francs laa koy jaayee. fan ngeen nekk yéen. maa ngi nekk Ouest Foire. waaw côté nag yi rek ci biir noonu waaw. mën nga joxe sa numéro téléphone. sama numéro numéro Adja. numéro téléphone bi. waaw tubarfakalla yéen a ngi ci place su Couture. Euh, muy place boo xam ni cuuraay yi nga yëkkati léegi wone ko boo ko gisaatee rek Dubaay nga dem boo jógee Dubaay boo ko bëggee gisaatee da nga ñëw Jaffa Couture fi nga koy fekk gis naa la nga xool borode autriche yi ak euh, broca yi ak ashkaj yu baax yëpp trois focal la bi mu ngi ci Ouest Foire boo ñëwee ba ci poste courant bi nga dugg noonu rek kat dem ba Diop si rek. xam nga Demba Diop si tubarfakal la député bu mag boobu. ñëpp xam dañ ko. taalibi sëñ Mansour boobu taalibi sëñ Babacar boobu ñëpp ko xam ba fa ñëwee rek tubarfakal la numéro téléphone bi 77 302 33 25 302 33 25 soo fa ñëwee rek boo bëggee gis lu lu baax rek ñëwal Jafa Couture. mbokk toll na di ki ñu taxawoon nag mooy soxna Ndeye Fatou Ndiaye kenn dootu ko présenté nag si euh, seen musicale bi. Euh, namu nañ nag ensemble lyrique traditionnel bu Sorano euh, soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fay DJ maa ngi lay fay bu baax. Euh, tey nga nekk si fii si 11 News surtout fondation Kër Rassoul lan moo la indi tey si exposition bi. waa li may indi mooy Adja Diallo Adja xale bu baax la bu bari jom bu nangoo liggéey kon bu wootee lu mel nii képp kuy jigéen rek da war a ñëw fekk si ko mm-hmm. looloo tax nag ma bàyyi sama lépp. ñoo nag ñëw fii tey jii fii si Adja Diallo euh, dañ lay gëj a euh, gis euh, si si scène bi wala bokk nga génn dara ndax da bàyyi woy ah loolu kenn du ko def man fonctionnaire la man fonctionnaire laa ca Sorano su ma bàyyee woy même suma ma retraité du ma bàyyi woy ndax ay woy kenn du ko tàmbali di ko bàyyi xanaa télévision yee bari rek ba nga xamante ni doo mën a xoolandoo ñëpp mais barki démb rek TFM teg na sama clip doomu géwél la tubaarkàlla macha allah ma woy Seydina Mouhamed. woy ci alaaji ma Madoune Thiam. Mouhamed Abdallah Thiam Mouhamed Abdallah Thiam mu baax mi. di sama doom. papaam bëggoon ma loolu yal na yàlla seral ay yaxam. ma Madoune Thiam. xam lan la bokk nit ñi. Mm-hmm. fonk ma lool lool lool. man moo ma booleeg doomam. Mm-hmm. ma ñëw këram. di ko ziyaar si. mu woo doomam. ni ko dama lay jox sa bàjjan faatu njaay ba yàlla def te mu jiitu ji doomam nag jàpp ma lool caam di nit ku baax bëgg ma lool man Seydina Mohamed bi ma woy yàggagul daaw jéeg la rek. yàggul deux ans dong la am. dañuy bëgg di leen gis bu baax. dañuy bëgg ngeen di gunge xale yi bu baax a baax. loolu moom dëgg la moom waaye xam nga temps yi comme que ñoo ngi ci li xew rek. daal mhm. na ko fi yàlla jëlee. feebar bi nga xam ne moo tax ñun ñëpp ñu def nii suñuy mask mhm. nag la macha allah dugg na ci réew mi yàlla na fi génn ak ñun ñëpp ñu dellu ci suñuy activité waaye xam nga Sorano mooy fa mu fa mu nekkoon ma mang fa ba nëgënd rek. jogu fa jogu fa. boo bëggee seetaan folklore. wayu tegu wayu tem. wayu tegu ci yoon. wayu géel pire. ñëwal Sorano. moo yëkkatil tuuti rek si Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. ah Seydina Mohamed nag moom kenn du ko sant ni sax muy gànt ah. waaye comme que dama ànd sama doom mu teg orchestre ah. ma war koo déglu. moo tax ma bëgg koo jox cër rek. waaye Seydina Mohamed moom. ku ko bëgg ñu defal la ko waaye weesugul maa ngi fi. yaa ngi fi bala may dem. Eh. dinaa la ko defal bu soobee yàlla. jërëjëf <laughs> soxna Ndeye Fatou. merci beaucoup. jërëjëf voilà mbokk internet yi ñu ngi fii nag Kër Naby Couture euh, Kër Naby nag suñ ko waxee ak fondation Kër Rassoul moom benn la fi mooy kër gi la maison ñu ànd ak nag soxna Fatima soxna Fatima ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. Euh, tey ñu ñëw fekk la fii si exposition bi euh, ngeen di def ay couture yu mujj mucc ayib. Euh, li nga yor lan la loo ñu mën a présenté. waaw de moom marinière bu ndaw la rek boo xamante mën naa teg lakk yàpp ci tabaski bi xam nga bientôt laa tabaski xam nga yi moom wax dëgg yàlla macha allah jéeg bu tegal sa sa alaaji lakk yàpp xam nga lu baax rek ngay dégg lu dëgg. am nañ fi nag ay collection yu bari nag ku mel ne robe bi blanc bi am nañ ci ay couleurs yu bari bari ñu taxaw si marinière bi parce que marinière dama ko dama ko gëj dama ko gëj a dégg dama ko gëj a dégg dama namoon marinière man dama ko namm ak kër na bi nag marinière yu baax ngay am ak kër na bi dara fay ko mauve mauve blanc mauve blanc macha allah am na nag am na couleur yu bëree bëree bëri xam nga mënoo indi yëpp parce que comme instant bi dañoo xaw a xawat yooyu baax si neex si tàngaay voilà neex si tàngaay surtout gis nga kon daal lii dañ koy lakkee yàpp nii nii yàpp kese la eh eh jëlal beneen <laughs> kër na bee ngi nii lii lakk yàpp kese la ah yaa ngi yaa ngi yee fitna nag nga def bii bu gudd bi bii ngay def voilà bii ngay def bii ngay def wala ka yàpp ba pare ak marinière eh. bu baax da ngay def bii da ngay def daal di koy daal di koy daal di koy tegee sa sa sa sa alaaji xam nga lii moom ayof na te léger na xam nga bëccëg gi day xaw tàng lu baax ngay am boo demee ba ngoon gi nag macha allah nga ñëw jël bii xaaral xaaral rek xaaral la couleur bi rek moo change benn la. en tout cas mi ngi noonu Keur be ngoog de Keur Naby Couture gi nii eh, couleur yaa ngi noonu yu été yi bi moom man maa ngi si mauve yi. mais li bi nag moom pour ngoon gi la. bu kee gi sedd gi xam nga dafa xaw tàng bu kee gi sedd tuuti. ba xam nga lu si neex man. ni ngeen dégradé mauve bi ni ngeen ko dégradé ba si ngoon si ngeen mauveul ko nag tout mauve. mais moo noonu xel sax. non billaay wax nga dëgg bàyyi naa si xel non ah. man de bàyyi naa si ah, kër na bi rek. wax nga dëgg te ñetti ñetti couleur la yoo benn bokk ci sama am na gis nga moom. macha allah lu baax la ngay am ak kër na bi daal macha allah. fan ngeen nekk yéen. ñu ngi nekk Ouest Foire. ah Ouest Foire waaw Taliwaali bi. ah Tali Taliwaali. Taliwaali waaw foofu lañ nekk waa ku ñëw rek incha allah boo ñu contacté 77. 600 671. 42 47. 77 671 41 42 47 wala 77. 313 90 00 incha allah di nga jot di nga loo bëgg rek incha allah dinañ la ko ñëwaat bu neexee yàlla kontaan nañu bu baax ñoo leen gën a kontaan. yàlla yàlla kontaan amiin waay merci beaucoup jaajëf. maa ngi leen di fay. mën nga présenter seen entreprise bi. waaw sama entreprise man maa ngi Création je travaille avec une copine Cane Close elle a exposé ici man maa exposé fii. lan ngeen lan ngeen comme couture. man damay def ay tenue en coton damay def ay tenue en lin pour ensemble yi pour c'est pour ensemble lin la. bi nag. ensemble góor la. Euh, tubéy ak kaftan la. yii aussi ensemble góor la. Euh, super 100 la demi saison la. damay defar ay euh, tenue en coton aussi des tenues des robes c'est sama spécialité. comme ça. damay def ay robes. waaw je fais des robes en wax sama spécialité la jupe taille basse wax. ok waaw c'est léger. waaw. ok. ok. jëlee ko léger. kër Seydi Aladji Malick euh, fan ngeen nekk. Euh, man sama déplace quand même parce que may liggéey je travaille à la DAF. d'accord waaw mais kii sama copine bi Kani Close moom mi ngi euh, Sacré Cœur côté IPG la nekk waaw mi ngi foofu. est-ce que y a un numéro téléphone. numéro téléphone pour Makay Création c'est 657 03 78. ay sera là xam naa après dina def présentation bi léegi mu ñëw. d'accord merci beaucoup. waaw merci. lambay lambay be yaayu papeek sayal ak Mansour aji Diallo Diop si Ndiaye sama